foofu lañ koy teg tey la ñuy def boo taxawoon ni bidaa la àdduna bëgg a sa kanam imagine tey ki bëgg a taxaw jël allah allah ci biir jàkka nee na loolu alxuraan la ko allah allah alxuraan ci kan la wàcc du ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam bisu àjjuma saxaaba yi dañ doon tudd yàlla dañ doon tudd yàlla dañuy tudd yàlla ci suba yi ak ngoon yi dañuy julli toog di tudd yàlla fa nga toog mais daawuñu def mbolo allah allah allah allah non loolu moy bida so comprendre yow da nga na lii li sunna la sahaba yi def nañ ko mais mod bi ko defé motax mu nek bida ndax sahaba yi xamuñ ko sahaba yi musuñu toog nek mbolo sanni benn affaire ñepp da dajaloo tok di génn gauche droite allah allah allah non sëñ bi lii lii folo c'est du folklore du la nakare deewal c'est pas vrai daluma wasifa tudduma wasifa tudduma tiijaan ndax séquma ak ñoom dara lu ma leen yabee ba war leen ko tuddee ñaareel bi man sama famille lépp tiijaan la dara raxuma kon même bu dul dara danaa leen ci seet ñoom